tey jii nii l'insécurité la violence font la une de l'actualité nationale. <coughs> Hmm. lu ñu ci mën a wax rek ci as cof tuuti. waaw indi lan ko fi jëlee. sécurité lu ko fi indi jëlee. Mhm. xam nga état Sénégal ba ñuy créer seen AFP yi. Mhm. ci lañ njëkkee wàcce yoon. Mhm. AFP yi bañ koy créer. Mm-hmm. xaw ma ku ko njiit wante du loo xam dafa tegu si yoon mm-hmm. sécurité da koy jox ñu ko man trente huit ans sécurité xam lan mooy sécurité Jean Paul mi yoroon naa sécurité mi xam na bu baax gis nga sécurité dañuy tëgg bay tëgg sa mbaar ma boo ko bëggee jox gaal ñu ko demal nga nappi da koy tooñ mm-hmm. ku nekk danga koy jox lu mu moom ak lu mu xam place bii ngay animé boo ma ko bëggoon a jox ni ma koy animé dinañ ma fekk dóor ma ay yet. <laughs> mënuma ko jànguma ko. Mhm. du ma journaliste. Mhm. aw ma formation boobu wante Sénégalais xaw ma ko xel gis nga bi ñu jëloon euh, booy yi nga xam ni génn nañu armée. Mhm. ñu former leen dugal leen police gendarmerie ñu encadre réew am moto yoo xam ñooy patrouille vingt quatre sur vingt quatre. Hmm. la police nationale mën na ko gérer. parfait sans AFP. booy yaa ngi fi jàng nañ nañ leen dóbbu armée. Hmm. étudiants yaa ngi fi jàng nañ di def ay concours toog da ngay étudiant day mujj dem nekk vigile am bac da nga leen di jël réew mi am na ñoo xam ni man daal dama ne politique bi daal Sénégal hmm. moo ñu tardeel dañoo jiital lépp ci politique ak mbele mbele bi li bu dul jeex boo xam ni te boo toogee say lal di nga ne ah man wax naa ba génn ci ëllëg ñu fay la nga lekk riba ëllëg nga am ay duma yi suñu borom parce que niñ jël ngir yàlla xale yi ñu dugal leen ci armée bi dugal leen police yokk recrutement yi ñu ñu jël yoo xam ni vingt quatre ci vingt am ay patrouille ci tous les nga xam agresseurs yi da nga leen di canaliser gis nga agresseur yi ay nanite liñ ñun ay nanite liñ boo leen xoolee ñu te xam ne yow mii ngaaka nga dañuy ñëw song si la. Mm-hmm. xam nga gaynde bala mu lay song. Mm, day daf lay xool da lay natt. da natt. Mm-hmm. agresseurs yi noonu la ñuy def. Mm-hmm. kenn du xool ko su Moussa mii ni tey nii da koy agressé. di ko song de. <laughs> parce que di nga ko waajaat parce que loolu. nañu jéem a jël nit ñi ñu former. xale yi. Mmh. dugal leen ci police bi gendarmerie AFP yi waruñu nekk ci domaine sécurité publique yi. Mmh. tout à fait ku ko waxul yaa ngi wax si parce que loolu. Mmh. lu commissaire Keita waxoon ba muy doog a créé AFP yi. man ñu ni nañu yokk xale yi recrutement yi gis nga fi toll nii police moo la gën a xam renseignement yi. bu xamee nii lii am na ay policiers en civil yu véhiculé leen wutal leen ay moto extérieur. ñu tëj Dakar Sénégal yëpp ñu dóor leen léegi renseignement yëpp jeex mhm. gis nga toogaayu mbedd yi am jot la nañ jël xale yi ñu liggéey am doole di altéroog di toog di naani kii ak yooyu nañ leen dugal ñu liggéey. justement papa mu am solo. comme nag ñun dañoo mën a roy waa France bi nga xamante ni ñëpp a ñuy <laughs> joxoñ baaraam tuuba ni ñun dañu leen di roy ñoom sax seen jeunesse boo atteindre dix huit ans ba vingt ans defoo dara dañ lay dugal armée même bu dee armée peut-être du am continuité dafa lay tàggat euh, jàngal la àddina ndaxte armée képp ku fa jaar rek da ngay nite boo xoolee sax euh, alkaati euh, dafay nite quoi des des correct lépp luy leçon de civisme ak yooyu noonu da ciy nekk rawatina nag ndaw yi mën a wàcc ba ci dëkk yi daal di li nga xamante ni moom moo di kaaraange askan si soxla na ko merci beaucoup papa euh, kon nag euh, coach Moussa la ñuy jëli rek ci suñu fitness du jour laata rek waxtu bi du ñu dab mbaa mu ñuy xooj kon nag coach Moussa c'est tout de suite. Aïcha, coach Moussa, fitness, aujourd'hui nous parlerons de comment travailler la taille avec le bâton. voilà Asma merci beaucoup tey ñu ngi leen indil euh, beneen astuce boo xamante ne mu ngi ci kër yi mu ngi ci bureau yi mu ngi ci salon yi fépp fooy mën a nekk boo demee di nga ko mën a am mu mel ni lu anglais di wax stick li sama professeur euh, Ablaye Cissé di mu wax ne bant mooy li li li liy dimbali euh, borom ku gëb bëtam sëgg ah am na daan nee na nu mu koy waxee ne ma ma ne ko bant ah, en français di ko wax bâton mhm. maanaam boo ko amul nga dem ci menuisier bi mu daggal la benn bant bu un mètre vingt cinq selon la taille de la personne